mais fii ci corniche bi boo demee siège APR poster bu mag bu Macky Sall lañ fa teg te pourtant keroog bi muy investir candidat am dafa dem palais palais sanctuaire la. waru ko woon defee loolu c'est une atteinte au valeur de la République kenn amul droit di jël pale di ko moomaleel sa parti wala sa coalition. loolu du man maa ko wax man dama nokkoon xale nekk ci dëkk bi di dégg ay ñoom Amath Dansokho di ko xeex yàlla na ko yàlla yërëm ma dégg ay ñeneen ak ñeneen ak ñeneen di ko xeex am na loo xamante ne waruñu si reculer yàgg naa ko wax boo fàttali ko dama daan toog di wax ni président de la république waru la dalal maire APR rek bërki démb avant muy dox renoncer à sa troisième candidature fan la dalal maire yi ak président conseil départemental. au palais. au nom de quoi pourtant politique lañu fa doon def ku ne da wax ñëwal nekkal candidat lañ ko doon wax. la République a des valeurs la République c'est une idée mais la République c'est le nombre de gouvernants et leur durée au pouvoir